fan la lek meddi di dagani. moy fi nga deme ba xif ba amu lo lek ba lo rek sës fa ba nga yakane da nga am ah. Ah. loolu ah waaw ba nara de mhm. nga gis ni loolu rek amna suma juumul ben histoire bu amone ci ki dagon tank bi xaw ma waaw tànk moroomam waaw mhm. lakk ci lek dag ci dag ci lëf ki ko mosko kok da daa morom mi nak bir ci bu ko ñak fay da passé wu mhm. yow ñun ñaar ñu xef ngay dag sama tank. lo tire dag sa bas mais l'islam tey l'islam l'islam l'islam daf la may ne la boo romboon xar mu mid xamoo kañ lañ ko rendi xam nga kenn du wax rey mm-hmm. rendi rendi la ñuy wax rey ngeen seen xaru tabaski déedéet rey dafa araam rendi moo dagan mm-hmm. rendi ngeen seen xaru tabaski mm-hmm. mais bu fekkee ni genre da ngaa xiif xiif ba mu leer ni la boo lekkul dee nga romb xar mu mid l'islam nee na may naa la nga dagg si lekk waaye waxuma la nga dagg mu neex rek nga jël yóbbu sa kër pour beneen jour déedéet may nañu la fi nga xiifee nga daal di ci lekk. Mm-hmm. waaye doo emporter. doo am doo emporter amul emporter. ah déet emporter da da da mais mais mais am na am na am na benn benn benn benn xale ñu baal ma deux secondes rek mm-hmm. euh, bàyyam lu dul jeex la yor mais day wàcc dem ci dëkkandoo yi di fa lekkee xam nga léeg-léeg nit këram mën naa bañ a manqué dara mooy problème mu togg lu saf la ñu am. Mm-hmm. mais am na góor ñoo xamante ne restaurant la ñuy ndékkee fa la ñuy añee fa la ñuy reeree te manqué wuñu dara parce que seen soxna mënoo mënewu ko te seen soxna itam bëggul jànk dugg ci kër gi parce que am na jigéen ñu fiir am na góor ñoo xam ne chaque jour seen lépp restaurant la. Mm-hmm. am koo xamante ni bu amee deux mille cinq cent invité cinq personnes. Mm-hmm. ci la ñuy añ ci la ñuy naan ataaya ci la ñuy naan ji mais xale bi am alal saa yu duggee kër jàmbur ñooñ dañ koy dàq. Mm-hmm. ba papa ji ni ko yow lu tax amoo jom saa yoo demee kër ñu ñàkk ñu ñu lay dàq pour lan. waa ji génn buntu ko këram woo papa xale bi mu ñëw mun ko dàq ko ndax siis dama koy dàq ndax ñun xiif mu ngi ñuy rey. te lii ñuy lekk dafa métti may bañ sa doom am bàkkaar ba boole la ci yow. waaye bu ma sañoon mu lekk ci comme lii ñuy lekk ñun dafa médd te moom waru cee lekk loolu rek moo tax ma koy dàq hmm. waaye bu ñu amoon loo xam ni leew na wóor na te moom mën na cee lekk moom dina ci lekk fekk góor gi waroon dem màkk hmm. mais dafa fomm yoonu màkkaam inventaire li mu waroon jënd ci sëri ceeg li mu war a def yëpp jox ko dëkkandoo bi hmm. gis nga ñu jógee màkk bu ñu ñëwee ñëpp dañuy daw dem di ziyaare góor gi waroon dem ñu ngi lay ñu ngi lay ndokkeel mu ne mais man dew ma màkk ñu naan ko si gis nañ la buuru màkk di di la nangam di la bi mu tëddee ba guddi am lu ko feeñu ni ko yàlla nee na teral bi nga teral sa dëkkandoo dàqal ko xiif ngir sa yoonu màkk gi moom la la yàlla fayee lu màkk ba ñu demoon màkk ñëpp yàlla wut benn jëm jëmm soppee ko mu mel ni sa jëmm buuru màkk di ko teral mu xam ni kon teral dëkkandoo looloo ci am solo na fi est que xam nga nii di togg muy xëy sa dëkkandoo te timbaloo ko ci dafa araam dañ lay bindal bàkkaar. Mm-hmm. ah ko dëkkandoo dafa sew de. xam nga lool mm-hmm. di togg. di togg mama muy xey sa dëkkandoo ah. te ya ko ci yalla ngi lay bindal bakkar motax mhm. tax aïssa bu dan togal yonent bi yonent bi dafa nan ko doole ci ñeex nak ñom diw doole ci ñeex ba aisha ñuko yow bu la dina sàlli mhm. mais legui bala ngay am lula neex nga jënd dibi ñew ba ci euh, yalla bo nek keur gu mak ñew ba ci buntu mhm. euh, euh, ki bi wañ bi tembal ko fa pour lan len rek mo la ci neex wane ni bis di dibi nga réere amna ño xamanteni xamante ak jabar pour ñu kokkeli yaayu ndaw si bu xamade day jënd ay yapp wala dibi wala nangam bàyyi ba deux heures du mu def ko ci mbalit mi mhm. yaayu jëkkër ak ni yaayu jëkkër fooree nga romb dibi boo xam ne sa doom bi nga jur moo ko lekk ak soxnaam nga bëgg a yendoo naqar yow ku góor ki est-ce nga am bunt booy fëgg yàlla di la ko doo am jàmm de doo ko am hmm.